digital sur www.genfm.sn tey ñu ngi ak euh, Mamadou Ndoye Mamadou Ndoye yow yaa nekk euh, président comité supporter euh, olympique de ñu bàyyi la nga nuyoon teg ñu lay seetaan. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu mbokk internet yi. Mm-hmm. di nuyu waa Sénégal ak waa àddina. d'accord instant yi actualité football bi au Sénégal mooy finale coupe du Sénégal bi nga xamante Olympique de Ngor Dajel a dajeel ak AS Pikine mhm. loolu nekk final bu mag boo xamante ne depuis 62 participé wu leen ci euh, léegi naka ngeen ko nar a waajalee en tant que supporter. final bi moom ñu ngi koy waajal ñu ngi koy waajal bu baax la preuve on a commencé à tenir euh, ay ay réunions au niveau du village mhm. pour sensibiliser les gens mhm. mais ñun dañ ko dañ ko bëgg a au delà bëgguñu ko yemal rek si niveau local c'est-à-dire à Ngor nous bëgg euh, commencé nañ ko sax dans les villages environnants c'est-à-dire waa Wakam ak waa Yoof ak euh, def ko en même temps une fête lébu impliqué ñëpp quoi parce qu'à travers Ngor c'est toute la communauté qui lañ touché quoi donc marché bi ñun dañ koy euh, dañ koy d'abord parce que déjà dañu war a participer au niveau compétition africaine donc loolu rek fête là quoi Sur loolu lañ ne dañuy euh, woo suñu mbokku libu yëpp def ko benn fête bu mag yaakaar naa ne avec ça ça la fête sera belle quoi d' accord yaa ngi wax seen mbokku lebu yi au niveau de Yoff ak Ngor. Mhm. mais ñi ngeen koy waajalee dañu bëgg xam détail yi exactement da ngeen di defar ay banderole kese. Mhm. tëgg bi naka la exactement détail lañu bëgg xam noo leen koy waajalee ak seen réunion yi. Mhm. pour lan la exactement loo leen nar. ok li ñu nar moom bëri na trop. parce que déjà au niveau de Ngor on a prévu rek dëkk bi yëpp ce sera au couleur de jaune bleu dëkk bi yëpp Ngor bi yëpp dañ ko fas peinture jaune bleu si loolu commencé nañ ay réunion déjà le samedi prochain nous ne prévoir nañ def ben réunion bu mak bo xamanteni ce soit une assemblée populaire ñu woo wa dëkk bi yépp ñu dajaloo si euh, place publique bi fee fofu lañuy def planification yépp et euh, concernant yenen yenen yenen dëkk yi c'est-à-dire wa Wakam ak wa ak waa Yoff sen président comité supporters yi wa Wakam muy Pape Diop Wa Yoff di Karim aussi ñom aussi impliqué wu nañ déjà pour final bi rek demandé lañ ku si nekk waa Yoff demandé nañ au moins dix quarts waa Wakam demandé nañ dix compter suñu coach bi ñëpp xam nañ ne waa cees la waa cees aussi ñu ngi laaj dix quarts ñoom aussi donc buñ ko naree jàppee noonu moom yaakaar naa ne moom kenn du fa xaj quoi si wàllu mobilisation bi. léegi côté folklore côté folklore naka bi déjà ñun xam nañ ay lébu lañ déjà il faut ñu wane suñu culture. <laughs> wane wane nañ nañ ay lébu lañ ce sera une fête lébu comme ni ma ko waxee au début rek ñu waxee wa wakam ak waa yof euh, donc fofu culture lébu dina feñ en même temps aussi fofu dinañ né euh ñun mën nañu supporter parce que ñu su bëri dañu yaakaar né wa Ngor mën nañu supporter lolu mo waralon sax ñun bolé ñu ñu ci coupe euh, coupe du maire bi ñu organisé woon mais ñun fi dinañ profiter aussi occasion bi wane nañ on a une base affective une grande base affective wane suñ doole. d'accord légui yeen pour pour sen sen li ngeen bëggee mëna lan ngeen soxla exactement. li ñu soxla moom bëri na ñu soxla moom bëri na parce que déjà boo xoolee Ngor euh, li ñu am si ressource benn dëkk amu ko parce que toutes les sociétés son ici à Ngor sociétés yi gën a mag ñu ngi basé wu fii à Ngor ONG yi gën a mag ñu ngi basé wu fii à Ngor euh, personne. personne euh, personne responsable yi nga xamante ne nii maanaam ñu nekk si mbuur geek ak ñu si bëri borom daraja ñu si bëri ñu ngi concentré wu fii à Ngor donc ñooñu ñëpp la ñuy woo bàyyi ñu kenn ñooñu ñëpp la ñuy woo ñëw parce que le fekk ñu dëkk en si euh, bi rek pour man war nañ war nañ mën a profité si occasion boobu noonu pour participer. Selon loolu nag nous avons fait. ñëpp toutes les sociétés ñun déjà dinañ dem seeti leen Nous ak pour ñu apporter une aide. borom daraja yi comme niñ ko waxee ñu dëkk fii tamit ñoom ñëpp dinañ leen pour nous participer à final finale. pour final bi. Mhm. on a prévu pour la préparation de la finale 20 millions. pour préparation de la finale. 20 millions lañ prévoir te gëm naa ne avec euh, ñi ressources xamante ne bi fi am 20 millions jot ngeen am dara lu si jot a dara ñoo ngi xaar ñëpp bon volonté yi ñëpp ñu indi xaalis dafay ñu mën a préparer suñu final. am nañ si yaakaar bu baax incha allah am nañ si yaakaar dèjà suñu responsable commencé nañ def démarches yi mel ni ñoo Ablaye Dia yooyu noonu. Mhm. commencé nañ def yenn démarches yi donc euh, am nañ si yaakaar bu baax quoi. jërëjëf merci beaucoup.